daal di koy door ak Dakar Presse journal bi xëy daal di àddu ci ab l'accident bu am ci yoonu foire journal bi ne ñu ab bus tata bu ligne 44 moo bàyyi yoonam daal di faat lu tollook ñetti nit la républicain yéene kaay moom it desu ci benn yoon ginnaaw ni ab bus tata moo mbëkkante ak taxi daal di nag faat ñaari nit suurnal bi nañu ñu ñaar ñooñee sax ñu ngi nekkoon ci ab moto dañuy bàyyi wax jooju dem ubbi news journal bi dinu xibaar ni amadu Ba mi fi nekkoon candidat Benno Bokk Yaakaar ñibbisi na démb uh, ci diwaanu Ndakaaru journal bi ne moom amadu Ba ana nan nag la nar a def ngir mën a jàkkaarloo ak Macky Sall ak président Bassirou Diomaye fay ndax nag journal bi mi ngi ñuy xamal ni bu nu sukkandikoo uh, ci résultat yi nga xam ne nag uh, génn na ci présidentielle bu 2024 moom Amadou Ba am na ci lu tollook fanweer ak juróom ak lu teg ci téeméer boo jël loolee nag moom moo koy def chef de l'opposition waaye journal bi mi ngi ñuy xamal ni militant yu bëri bokk ci APR alliance pour la république ñoom dañoo jàpp ni Macky Sall nag jàppale wu ko woon moom Amadou Ba noonee nag la ko bi xamle ba léegi nag ñenn ci askanu Sénégal ñoom nag yaakaaruñ ne Amadou Ba mën na jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi ci jamono ji waaye nag journal bi nañu moom amadu Ba mi ngi juddoo foofee ca ñaari tali te nag xam nañu ña nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee foofee ca ñaari tali nu mel journal bi Ba dee nag dafa dikkaat ci langue politique ngir nag uh, tagg uh, Macky Sall na xam ni nag uh, du yoon bu baax bi journal bi ne bu dee nag bëgg na am dara ci lu jëm ci wàllu politique faaw nag mu jël yoonu boppam ndax nag mën a jàkkaarloog président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko journal bi teg ci ni Macky sal ci jamono ji mi ngi bëgg nag boolewaat njabootam waaye loolee nag boo mooywul du yomb l'informateur quotidien ci xët bu njëkk bi nañ fa fekk nataalam moom président Macky Sall ci jamono ji nag boo moywul ñoom ñaar nag seen diggante du neex te nag du mel nam meloon enquête yéene kaay daal di ñëw ak ñun ci lu jëm ci constitution pôle libéral démocrate journal bi ne libéraux ak démocrates yi ndax nag nekkul dañuy xool ci ni nga xam ne noonu la socialiste yi def ci jamono jii bëgg nag boolewaat njaboot gi Moussa Diakhaté bokk gis-gis ne lu tollook ñeent fukki formation ak juróom-ñeent ci jamono ji nag ñi ngi waxtaan ana nag lan journal bi ne bokk na ci APR PDS bokk gis-gis LDR yeesal UCS jamono ji nag ñu ngi xool ana nan nag la ñu nar a def ngir nag daal di amal ay alliance Walf Quotidien ne ci jamono ji nguur gu yees gi nga xam ne nag moom moo fi nekk dafa mel ni nag amuñu kujje politique ndax nag kenn déggu leen boobaak léegi tribune journal groupe des médias ne ñi moom dégg nañu leen mooy ñi nga xam ne nag ñoom ñooy boulanger yu réew Sénégal nee nañu boo mayul nag dinañu yokk njëgu mburu mi nag ci jamono ji woyofal njëg li dafa yokk Senelec nag di ko justifier ne ci jamono ji tàngaay bi moom moo ko waral waaye nag journal bi ba léegi di ñu xamal ni ñi nga xam ne ñoo doon fay 20 000 francs ci weeru avril ci weeru mai dañuy fay li nga xam ne moom mooy double bi la témoin yéenikaay ne lu jëm ci wàllu yokkuteeg wala wa ñu wàññi yenn ci ay njëg président Bassirou jomaay Faye ndax loolee dana ko mën ndax nag ci askan wi ñu ngi ko ci xaar yi nga xam ne mooy Momar Ndaw bu ASCOSEN professeur Idrissa Diandi bu université Cheikh Anta bu Ndakaaru Alla Dieng bu UNACOIS Yeesal ñoom nag ñoom ñoo ci indi ay tontu Sud Quotidien nañu bus rapide transit du BRT dina tàmbali nag daw suba loolee ñeenti weer ginnaaw inauguration bi président Macky Sall moo ko amaloon dañuy jeexal ak l'Observateur le journal du groupe Futur Média sournal bi ne ñu confidence la yenn ci ay jigéen yoo xam ne a seen borom kër bu leen utalee Euh, wujju journal bi ne nag euh, guddi gu njëkk gi am na ci ñoo xam ne dañuy dog ñeneen ñi ah, dañuy bëgg sax nag amal séquestration journal bi ñeneen ñi violence physique yëglekaay bi ne ñi ci des moom ci ay sëriñ la ñuy mujjee